salut les amis ziar naa bu baax a baax dal leen ak jàmm ci seen podcast wolof teg bi leen di jox lépp lu jëm ci wàllu informatique ak nouvelle technologie maanaam xarala yu bees ci kàllaama wolof alors. tey nag moo nekk suñu deuxième épisode ci saison 4 bi ñoo ngi ba léegi ci premier partie bi maanaam développement alors ci épisode tey bi nag dinañu waxtaan ci benn sujet bu am solo maanaam lan mooy njëriñu design ci bépp produit informatique boo xamante ni dañu koy defar te ay nit war ko jëfandikoo lan mooy HTML lan mooy CSS ak seeni njëriñ dinañu waxtaan aussi ci lan mooy métier wu web designer ak métier wu développeur front-end alors pour waxtaan ci ànd ak suñu invité tey bi maanaam Mouhamadou Der nga xamante ni xam-xamam dafa màcc ci wàllu web design wàllu développement front end wàllu UX design ak yeneen ak yeneen Mouhamadou Der si yar nañ la. maa ngi lay delloo ziar sëñ daal. waaw man maa ngi tudd Mouhamadou Der donc man web designer la en en plus kii la front end développeur donc ci français ñu ngi koy wax intégrateur web. Euh, maa ngi liggéey ci benn entreprise bu ñu naan Marodi TV ren jii mooy sama juróomeel at may exercer benn métier bi. ok merci Der alors Der am na nag yeneen compétence yoo xamante ni euh, dégg naa ne am nga ko mais dinañ ci wax après ci fin épisode bi incha allah d'accord <laughs> aywa ñu dem directement ci sujet tey bi alors ci épisode bi ñu weesu waxtaan waxtaanoon nañ ci wàllu algorithme maanaam xalaat ci naka la ñu war a def fan la ñu war a jaar pour indi ay saafara ci benn façon problème alors bépp application wala logiciel informatique bu nit di utiliser dafa laaj mu am benn xar kanam boo xamante ni moo koy permettre mu mun ko utiliser facilement donc dafay laaj ñu am benn aperçu ci solution bi maanaam naka la war a mel avant même ñu koy defar. et pour loolu fokk ñu xam mais aussi fokk ñu mën a def lu ñu wax design ak ay jumtukaay alors DER gis nañu ne design dañ koy utiliser ci domaine yu bari maanaam ci wàllu mode ci wàllu décoration ci wàllu aar ak yeneen ak yeneen alors lan mooy design d'une manière générale ak lan mooy design spécifiquement ci wàllu développement informatique. Euh, maanaam wàll informatique moom lépp lu am écran rek wala fépp foo xam ne eh, nit ki. day jëflanteeg système bi rek il faut ñu defar fa design mën naa am sa sa site internet ordinateur euh, sa téléphone portable ni ngay connecté wu ci application yi euh, mën na nekk benn écran ci benn boo duggee ci benn boutique mu lay indiqué après fu jëflante nit ak machine fu mu am rek design day intervenir mhm. day day day ñëw foofu. Euh, ma lim bëgg na xam mooy lan mooy njëriñu spécifiquement euh, design déjà boobu noonu ci wàllum développement euh, web wala développement mobile parce que bu ñu waxee développement rek mën na nekk développement web maanaam application yi ñuy utiliser ci navigateurs yi wala ay développement mobile maanaam application yi xam ne dañ koy utiliser ci téléphone portable yi lan mooy njëriñu design ci fànn yooyu noonu. njëriñu design bari na yenn saa yi da ngay gis koo xam ne dafay installer benn application. ni voilà application bi daal installé naa ko mais daal dafa naqare utiliser wala euh, kenn connecté sa site am luy muy wër mënu ko gis mu perte temps bu bari ba mu mujj sax day découragé tëj sa site dootul ñëwati euh, sunu métier mooy dafa ba xam ni nit ki lu mu li chaque écran li mu bëgg rek ñu defaral ko ko ba mu gis ko ba mu leer nañ nga xam ne bu ñëwee day ñëw rek bés. def soxlaam. Mhm. dem yoonum sans problème. ok ok donc loolu mooy euh, euh, njëriñu design ci wàllu développement euh, web wala mobile. alors mhm. man li ma seetlu mooy ok man aussi maa ngi fàttaliku ay ay at ci ginnaaw euh, su ma daan defar ay design wala ma daan développer ay site internet wala yu demee noonu damay toog sama ruux rek euh, maanaam defar benn affaire vite fait après ma lancer ko si internet bi sans pour autant sax mu soucier wu ci aspect yu bëri sans pour autant sax ma def ay échange yu bëri ak client bi wala waxtaan ak moom wala yu demee noonu xam naa nag loolu euh, am na ñàkk expérience am na lu bëri quoi alors. maa ngi gis nag léegi depuis quelques années euh, ne am na ay spécialité yu bari ci wàllu design alors li ma bëggoon xam mooy lan mooy UI euh, design parce que damay dégg ñuy wax UI design di wax aussi UX design lan mooy seen njëriñ ak lan moo leen uutale ñoom ñaar quoi. waaw euh, depuis ñetti at design bi dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko ko gën a yaatal ba mu indiwaat yeneen métiers yu bees ci biir. Euh, bu njëkk ba web design rek dañu wax maanaam ki designé mais léegi avant kii design am na keneen ku nekkaat ci ginnaawam ku ñuy wax UX design cest à moom day xalaat moom xam na nan la doomu aadama di xalaatee léegi moom ci loolu lay sukkandiku pour defaral ko design moom la ñuy wax UX design UX design moom tout le temps moom mi ngi xalaat mi ngi xam nan la doomu aadama di xalaatee. ok yu euh, UI design mooy ki nga xam ne moom day defal lépp rafet lépp cohérent lépp tolloo maanaam ci wàllu gis-gis li li ñu ci gis loolu la ñuy wax UI design mais ci ginnaaw am na koo xam ne xam na nan la doomu aadama di xalaatee xam na ni doomu aadama boo ko tegalee bouton bu vert ak bu rouge xam na ni non rouge bi day dafa ragalu day dem ci bu vert bi en loolu la ñuy wax UX design quoi. ok mi ngi mi ngi mel ne boo bëggee tabax sa kër rek bala ngay tabax sa kër da ngay dem gis architecte bi architecte yi mooy defaral plan ni la suuf si euh, fii mënoo fee tabax étage bi fii mënoo fee tabax lii loolu la ñuy wax gis design léegi architecte moom bu defaree pare dañoo jox ko maçon bi maçon bi mooy tabax bon loolu mooy euh, le développeur. bu maçon bi tabaxee pare nag am na kuy peinture def aluminium def porte yi lumière yi loolu la ñuy wax UI design maanaam ci wàllu moo ko bëggee tegtal ci olof euh, noonu la demee. ok ok alors mais loolu c'est hyper intéressant parce que euh, dafa may yóbbu ci beneen xalaat sax mooy que ne euh, déjà comme li nga expliqué ni kiy def UX design moom moo nekk derrière. mais ki nga xamante ni mooy def UX design boobu xanaa dafa war a am ay notion ci sociologie ak wala yeneen xeetu xam-xam yu bari normalement. dëgg la dëgg la parce que u UX UX design yu mag yëpp euh, dañuy dañoo dañuy basé wu ci sociologie maanaam ñu xam lan mu alal bi lan mooy tax mu réagir. ok ok. UX designer bi bari même science UX designer sax ba tey jii kenn mënul xam exactement définition bi mais à la base euh, day sukkandiku ci sociologie euh, di su sukkandiku ci ce qu'on appelle les sciences maanaam lépp lu xel doomu aadama bi di xalaatee rek ci ci wàll woowu lay sukkandiku. ok ok alors alors alors loolu c'est hyper intéressant parce que euh, des ngay gis kuy def benn design yi rek euh, proposer benn affaire. alors designer bu mag bi bu ko xoolee di ci indi ay critique am mais doo comprendre yow critique yi muy wax ni fan la ko teg alors ko dafa am norme tu vois alors que am na norme comme li nga expliqué léegi ci bouton yu rouge yi yu xonq yi tu vois ak sûrement aussi euh, information yi nga xamante ni moo war a nekk ci application bi fi ñu ko war a positionné yooyu yëpp xam naa normalement war na ci am solo ci biir normalement. waaw waaau yésaay ux design mooy xam ba xam information bi wax amoon na njariñ ji koy jëfandikoo wala amalu ko njariñ wala yenn saa yi tamit eh, moom tamit moom mooy guider mooy mooy xettali eh, kii utiliser application bi nan lay def ba ba def li mu bëgg. def li nga bëgg moom i def moom day day day xam application bi la mooy njariñam mu xool yëpp doomu aadama yëpp xam nga doomu aadama yëpp yemuñu quoi. si si ku ci nekk am nga sa sensibilité. léegi am na ñoo xam ne da nga leen di présenter benn application taf taf ñu cliquer def liñ soxla bi am na ñoo xam nag faaw ñu laajte léegi nag yow nag da xool ci nit ku nekk du mu néew néew néew xel war naa mën a xam bu livre bi jëriñ nga defar ko noonu ba mu ba mu correct. ok nga doog ko présenter. ok ok je comprends alors là moom comprendre naa bu baax euh, comment ça marche alors euh, xam naa ne aussi euh, ñi nga xamante ni ci wàllum design aussi am na ay métiers yu bari quoi comme ni nga ko waxee léegi mais da ngay gis koo xamante ni duñ xam ndax kii web designer la duñ xam ndax designer la wala développeur la front end. ak lan duñ xam sax lan moo nekk spécialité am alors lan mooy rôle web designer ak lan mooy rôle développeur front end ci processus bi nga xamante ni moom la ñuy defaree application web wala application mobile. waaw euh, web designer moom day defar ay maquette donc maquette maanaam ci comme yenn saa yi bala ñuy defar yenn travaux yu mag yi dañuy defar benn maquette bu ndaw présenté ko comme par benn chantier bu mag comme par exemple Diamniadio bu ko président di inaugurer day dañuy defar benn maquette bu ndaw. exactement si si. loo xam da dangay xam ne lii nii lay mel après léegi nag mason bi moo koy tabax donc si ñun mooy intégrateur web mooy front-end développeur bi mooy jël design bi daa koy defar ba mu ba mu mu nekk loo xam ne c'est palpable. ok ok. moo koy jëmmal daal maanaam. mooy jëmmal mooy li nga xamante ni dañ ko defoon ci ay photo ay image ak yu demee noonu. mu jëmmal ko ba nga xam ne nit da koy mën a téye gis ko quoi. web designer moom day utiliser ay ay ay xarala ay sketch ay photoshop ay Adobe euh, defar ko ba mu mel ne maquette mais ay image dong la integrateur bi nag intégrateur bi nag moom mooy utiliser benn langage informatique bu tudd HTML ak euh, CSS maanaam moo ci ëpp jëmmal li mu defar. pour nga mën koo gis sa ordinateur wala sa téléphone portable. ok ok outil yooyu sax dinañ ci dinañ ci ñëw léegi parce que mooy nekk euh, sama deuxième laaj bi parce que bëggoon naa xam yow selon euh, sa bi nga am ci wàllum euh, ci wàllum design ak yu demee noonu am na jumtukaay yoo xamante ni moom la ñuy gën a utiliser pour defar ay maquettes soit pour maquette application web wala application mobile surtout nag ci 2020 bi parce que dañoo bëgg am ay informations yu bees tax <laughs> <laughs> fi jógee dinañ mën a dem télécharger. application yooyu pour déjà mën a commencer euh, di ci liggéey wala genre demee noonu alors lan mooy jumtukaay yi nga xamante ni moom moo gën a fës ci 2020 bi pour defar ay maquettes. waaw euh, xam nga euh, design yi moom d'habitude nit bari Mac lañ doon utiliser am nga Mac tamit. écran dafa leer. waaw waaw wax dëgg loolu am na solo am na ñuy utiliser ordinateur PC ak ñuy am ay wax nga dëgg vas bi nga xam moom bu doon xarañ mu ngi tudd sketch mais sketch euh, ci mag dong lay lay lay lañ koy utiliser ci mag dong les par la nag am na beneen outil bu génn boo xam ne moom day dem ci PC ci Linux bu tudd Figma boobu sa navigateur rek ngay tijji euh, créer design comme sketch doo ëppale dara euh, am na aussi Adobe XD moom it mi ngi fi day fonctionner ci Mac ci Windows ñaareelu lay lay lay connecté wu nga ko mën a utiliser jëfandikoo. sketch si moom moo ci gën a xarañ gën a am doole waaye euh, ci mag lañ koy utiliser Figma nag mi ngi tudd Figma Figma moom dafa ñëw boole lépp maanaam jërul sax ngay am mag wala PC wala nga nekk Linux yow amal sa Google Chrome wala Firefox nga tijji compte euh, c'est gratuit pour ñetti projet après moom li sketch def koy def. ok nii nii ñu sax sketch ak Figma ñi ngi diirante mbagg même ñun ñi sax instant bi dañoo jaaxal xamatuñ ba xam dañuy def sketch. <laughs> xamatu leen nag sketch ngeen war a utiliser wala figma quoi. mais alors mais mais mais alors c'est que fi lii problème bi mooy euh, sketch ci mag kese la mun a dox mais sketch est-ce que c'est payant. waaw waaw sketch c'est payant da fay cent dollars at bi. ok ci at bi. waaw mais nag jar na ko quoi ndax moom hmm. euh, li mu mën a def ci design def. Euh, bari na. dafa bari doole nga xam ni. Ah. pour nga diir ko mbagg du yomb. alors pour koo xamante ni c'est un euh, maanaam lu ñuy wax mooy jàngal boppam ci këram tu vois peut-être mun na am du am moyen yu mu jëndee euh, sketch wala bu amee mag benn mag sax wala yu demee noonu alors kooku moom je pense que kon euh, beneen bi moo Figma mooy gën a adapté wu ak moom. Figma Figma mooy gën a adapté Figma waaw. ok ça marche alors. Der lan mooy design bu baax ak ci yan étape lañu war a jaar pour defar design bu correct. Euh, web design. waaw design moo xam mu nekk design mobile wala design web par exemple lan mooy design bu baax lan mooy critère design bu baax. waaw maanaam design bu baax man ni ma koy test ni ma koy xamee mooy euh, su may defar benn site internet wala benn application damay euh, damay damay defar ay écran yu bare am na sax lu ñuy wax prototypage maanaam dangay ngay defar application. ba nga xam ne day mel ne sax lii pare na fekk pareegul maquette dongal léegi dama koy wan dama koy wan quelque nit su ma leen wane ñu xool bu baaxee rek dañuy comprendre ci saa si lii lan la mais su su baaxul nag dañuy xool mais duñ comprendre yooyu da ngay da leen di jox ordinateur wala téléphone bi nga ne ko defal ma lii jox leen ñu xool wala nga wan leen li nga designé nga xool seen kanam seen i réaction foofu psychologie bi day ñëw nga xool seen i loxo ba xam ñi hésité wala hésité wuñu boo leen xoolee rek boo leen wanee appareil bi rek ci trente secondes dañuy comprendre ni ok ok site bi lii lay jariñ ok application bi lii lay jariñ boo amul loolu rek xamal ne application bi des na dama defaraat écran yi am na yoo xam ne ni ko positionné baaxul. ok ok donc dafa laaj à chaque fois ngay ja ngay interagir ak euh, nit ñi di waxtaan ak ñoom. di recueillir seen i seen i gis-gis ak yu bari quoi. donc toog si ruq rek defar sa application rek foog ne baax na c'est pas c'est pas bien c'est pas recommandé. waaw xam xam nga yow tu es technique yow li ngay defar xam nga ko quoi mais am na ñoo xam ne ñoom technique ñu il faut nga wàccee niveau bi ba mu tolloo ñoom maanaam boo fa deful rek moom mooy daal ab entreprise yu bari dañuy jël seen seen application au lieu ñu ut des vrais web designers te dañuy bàyyi développeur back bi def lépp te développeur back bi lu idée technique moom ni muy xalaatee bokkul ak. ki nga xam ne mënul lire ni ñuy xalaatee. ok ok ok je vois. comprendre alors alors c'est c'est c'était li nga expliqué leer na trop euh, comme ni ko expliqué aussi sànq euh, wax nañu ci lan mooy rôle web designer lan mooy rôle développeur front-end wax nañu aussi ci jumtukaay yi nga xamante ni moom nga xalaat nañ ko utiliser pour defar ay maquettes euh, ak lan mooy maquette lan mooy maquette design bu baax nag nga koy xamee alors pour créer nag maquette bi ba boo créer maquette bi ba pare développeur front-end bi day utiliser ay ay jumtukaay pour comme li nga wax léegi traduire ko def ko ci def ko mu nekk benn affaire boo xam te nit da koy mun a gis euh, voilà utiliser ko directement donc nag euh, daf koy def ci ay page web wala ci ay prototype euh, pour application mobile ah utiliser ay jumtukaay yu ci mel ni ay HTML ay CSS wala ay JavaScript tu vois alors der gis naa aussi sa sa sa chaîne YouTube yaa ngi def ay explication bi leer ci langage yi ñuy utiliser c'est-à-dire ay HTML wala CSS mais lan mooy HTML. ak aussi des fois damay dégg nit ñi naan HTML langage la ñi naan non langage tu euh, ak lan lay jëriñ ci développement web HTML. Euh, su ma ko bëggee misaal maanaam HTML euh, mooy yax bi boo gisee benn boo gisee bâtiment HTML bâtiment maanaam mooy poto ferraille yi loolu mooy HTML ak coulage bi loolu mooy yax bi maanaam. lépp loo gis bind bi rek loo gis sa sa sa sa navigateur rek loolu HTML la CSS waaw CSS nag mooy couleur yi ak forme yi mooy indi loolu. ok ok mooy indi couleur yeeg li demee noonu. waaw liy weex liy ñuul liy jëm gauche liy jëm droite tout ce qui couleur ak forme loolu lépp CSS la mais HTML moom mooy yax bi quoi. muy yàq bi donc bu ñu ko mënee tënk HTML muy jëmmal site bi CSS moo koy jox taar. wa mi ngi noonu yaa ko wax. <laughs> exactement <laughs> non mais dañuy jéem a jàng olof la dañuy jéem quoi. <laughs> mais alors alors ci biir euh, CSS bopp am na leneen lu mu ciy gis cest à damay gis ñuy wax am ñuy wax SCSS am ñuy wax SAS. lan mooy différence ak yooyu noonu yëpp ko waaw xam nga xam nga CSS moom bañ ko defaree ba tey mosul bouger. juste sélecteur la ak bon xam naa olof la attribut ak valeur quoi manaam fii da nga bëgg mu jaune jox ko fii da nga bëgg mu mu bleu jox ko mais ni ñu koy bindee dafa xaw a yeex par rapport bu fekkee da ngay defar benn sit bu nganda nganda nganda léegi nag nit ñi ñëw indi soppi CSS indi beneen façon bindin bu gën a gaaw bu ëpp ay fonction loolu tax ñu indi SSS e mais SSS e ak SAS benn la sauf que ñi nga xam ne la ñoom dañuy bind ay point virgule ak ay ay ay parenthèse ay crochet alors que SAS ñi ko créé maanaam ay développeur Ruby lañu woon mooy ñi nga xam ne moom ay point virgule la euh, yooyu yëpp da leen di déranger loo xam daal wàllu rëboo la. di gën a yomb lañ gën a bëgg quoi. di gën a yomb gën a présent mu mu loo xam daal doomu aadama mën na koo liir mu mu gën a mu gën a leer ci ok ok. ok loolu rek mooy différence alors ça c'est mooy nekk seen différence quoi alors euh, li may wax di faral di wax à chaque fois si épisode yi aussi mooy euh, ñun jàngale wuñ fii nan la ñuy defee CSS wala développement yu demee noonu mais dañuy joxe juste euh, lignes yi nga xamante ni moo gën a yu gën a mag comme ça après nag ngeen dem si internet bi jéem a xool jéem a gëstu pour gën a am ay informations yu gën a leer xool pratique bi naka lañ koy defee wala comme ay xarala académie ak yu demee noonu noonu dinaa def lien bi après ci suuf comme ça nit ñi mën a dem jàngi techniquement affaire bi lan lay jëriñ mais ñun suñu vocation mooy wax pour nit ñi euh, gindaliku xam ne ah lii existe na lii war nañ ko mën a dem xool ñu dem xool ko sur euh, sur internet alors der xam naa ne am ngay ex ah, vas-y vas-y vas-y ma ne ko dogguma sax man mi wax ak yow nii man gestion entreprise a jàng macha ok lii lay wax ci lii ma la wax fii yëpp ci YouTube laa xamee ak internet oh macha allah ça c'est bien ça c'est bien ça exemple bu mag la pour képp ku ñuy déglu sax même boo nekkul informaticien. même boo nekkul jàng pour xam sa jàng bu soriwul amal niveau anglais bu bu yam rek. Euh, mhm. YouTube Google. Mhm. jeex. exactement ça moom c'est sûr. loolu bëgg a xam da koy xam. mën nga ko comprendre quoi xam ko. alors alors alors yow ak sa expérience bi nga am noonu yëpp yan framework manaam yan jumtukaay nga xalaat ne jumtukaay pour defar ay euh, front end ay CSS yu demee noonu yan jumtukaay nga xalaat ne ci 2020 bi moom la ñu bëri war a jàng moo gën a am solo. waaw euh, man ak sama expérience euh, dafa am lu ñuy wax xam nga CSS rek boo koy bind dafay jël temps léegi nag am na mooy li nga ko waxee lu ñu tuddee les framework yoo xam ne dañoo ñëw. jox la li nga soxla nga xam jërë nga koy loolu mooy njariñu Framboise léegi man bi may utiliser mi ngi tudd Foundation. Foundation. Ah. Foundation mais am na tamit Bootstrap am na Bootstrap am na am na yu baree baree bare waaye Foundation man moom laay utiliser ndaxte ah, chaque maquette booy defar day ànd ak stylam. ok te bu fekkee da nga utiliser ay Bootstrap wala yeneen boo tegee Bootstrap rek. yëpp da ngay xam ne lii bootstrap la tu es obligé ngay bindaate override ay CSS ba diisal sa CSS foundation nag loolu lay ñëw dindi foundation day ñëw jox lépp ay variable nga xam ne da ñëw rek style bi ni mel nga appliquer variable style par samay bouton lépp dafay dafay dafay rond nga ñëw remplir samay lii nii la mel nga remplir mu baax ah, ñu bàyyi dama leen di conseil ñu utiliser foundation bu fekkee da ngay. et ay mag ay sites yoo xam ne vingt pages à trente pages euh, nga xam ne bépp dañ ko def ay composants. Euh, ok euh, alors alors je pense que li nga expliqué noonu leer na trop. tu vois lenn bu baax ci bopp nit ñi euh, alors alors alors sànq wax nañ aussi ci description bi euh, en fait am na yu bëri ñu wax ci description bi maanaam outils yi ak yu demee noonu euh, je souligne ne dinañ ko bind après ci description podcast bi ay lien comme ça képp koo xamante ni bëgg na am ay documentation ci Foundation ñu def lien bi ci suuf wala ay documentation ci Bootstrap wala Sketch wala yu demee noonu dinañ dinaa laaj après der mu envoyé ma ay quelques ressources nga xam ne ne ni jot directement pour euh, documentation mais der bëggoon naa aussi nga waxal ñu tuuti ci javascript parce que du objectifu euh, épisode tay bi parce que dama bëgg def beneen épisode spécial boo xam ne ni dañuy waxtaan ci javascript kese parce que dafa bëri lum làmboo mais lan nga ñu mën a wax ci javascript ak développement front-end. Oh, waaw léegi comme ci ñi nga xam ne dañu bëgg a gëstu en fait HTML ak moom mooy tax nga am benn page web boo xam ne da nga mën a cliquer léegi daa am yoo xam ni HTML ak CSS nu ko def. ok moo tax JavaScript day ñëw complété ko mi ngi mel ne maanaam exemple nga tijji sa page Facebook ni ngay envoyé kenn message message bi ñëw ci saa si loolu JavaScript moo koy def maanaam beneen langage da boo xam day ñëw complété wu ci langage front-end donc fi mu toll nii pour nga nekk front-end dëgg dëgg faa nga mën HTML CSS ak ci JavaScript. maanaam JavaScript daal day ñëw compléter euh, front front end développement bi. Euh, développement si si. ñëw compléter bépp liggéey boo xam ne moom la ñu def ak HTML CSS day ñëw apporter ci beneen beneen couche boo xamante ni dafay tax liggéey bi gën a euh, gën a gaaw gën a am solo mais ak ak fonctionnalité yu gën a bari quoi je pense. waaw xam nga kii HTML ak CSS moom ñoom dañuy présenter rek. mais j'avance lépp nag mooy mooy tax mhm. kii ngay am échange yow ak euh, euh, yow ak navigateur bi moom yow <laughs> muy am interaction quoi c'est-à-dire boo bësee mu tontu la euh, ainsi de suite animation yi tamit yëpp javascript moo ko def javascript moo koy def alors mais je sais juste may damay wax juste que ne javascript moom dafa nekk dinañ ci dugg bu baax après ci beneen épisode mooy épisode bi di ñëw dinañ waxtaan ci javascript nga euh, ak framework yi nga xamante ni moo existe javascript parce que dégg nañ ñu wax ay React ak yu demee noonu donc bëri na ay framework yoo xamante ni ñoo existé pour te ko defaree à part javascript alors mais loolu dinañ ci wax ci beneen épisode alors Der ban conseil ngay jox bépp jeune boo xamante ni dafa bëgg nekk web designer wala mu nekk intégrateur web ban conseil nga leen di jox. waaw en euh, intég damay commencer ci intégration web intégration web moom ñëpp mën nañ ko da ngay jël sa temps après man dinaa la partager ay ay vidéo yoo xam ne dangay ngay seetaan rek nga xam exactement fi nga mën a def quoi intégration web mooy juste nga jël ay design nga transformer ko utiliser HTML CSS. da jël sa benn un mois sa YouTube ngay bind jàng HTML HTML yow mën naa jàng boo ci sëggee ñetti fan rek nga xam ni muy demee CSS tamit mën nga ci sëgg euh, une semaine deux semaines nga comprendre lu euh, muy fonctionner mais li ci des nag looy gën di avancer expérience bi gën a ñëw technique yi gën a ñëw mën naa ci gàttal daal boo ci sëggee juróom benn weer moom doo chemin foo foo dem jël la ndax fi mu toll nii Ndakaaru njiitu ñu ne ah, intégrateur ci moom dafay manqué. ok. Euh, jël jël benn maquette nga transformé ko utiliser HTML CSS codé ko ba responsive responsive maanaam mooy euh, site bi mën a mën a di di feeñ bu baax ci sa sa tablette di feeñ bu baax ci sa téléphone portable ak ci écran ah. mais nag euh, design moom yenn saa ci yàlla mooy def yow it nga am xel boobu maanaam yenn saa yi may yàlla la euh, parce que c'est de l'art nag parce que art la art la ci boppam. c'est de c'est de nga am volonté bi aussi euh, di inspiré wu maanaam nga xool site bii di ñu ko nga xool site bii ni ñu defee yow it nga jéem a nga sukkandiku ci site yooyu nga defar sa yëfi bopp am na ay site yu bari yoo xam ne mën nga fa dem pour inspiré wu uti uti xalaat ay dribble man fa fay nekk ay. Behance site yoo xam ne c'est pour c'est pour les dem di xool di xool site bi ñu ko defee site bi ñu ko designer mais après après foog nga partager ak euh, lien yooyu yëpp comme ça ñu ko joxe ci description bi podcast bi comme ça après nit ñi mun ci dugg di xool comme euh, site yi ngay wax noonu tu vois xam ne nit ñi dañ ci mën a inspiré wu pour euh, voilà am de mën a am benn xel bu gën a ñaw ci li ñuy def ko intégrateur web moom ñëpp mën nañ ko nekk am da ngay un mois nga xam ni fonctionné woo man ci ci man ci intégration la tàmbalee may dem ba si yàgg ma xam ni lii may intégré mën naa ko def mu gën a rafet ci noonu laa commencé di di jàng web design di web design ba ak si niveau bi àgg. Mm-hmm. ok nga am seetlu sit boo dugg di connecté wu même bu sa liggéey sax nga xool site bii ni ko defaree ni bouton bi demee maanaam nga nga tijji say bët quoi. Ok, ok. alors je pense que tey waxtaan bi am na solo trop mais euh, lépp mënuñ koo tënk ci ay quelques minutes parce que damay bëgg aussi épisode yi ñu def ko mu xaw a yem tu vois parce que bu guddee trop gars yi dañuy am paresse pour déglu ko tu vois alors li ñu waxtaanee yépp c'est important maanaam importance su design ci développement voilà mën nga mën nga def benn produit boo xamante ni baax na trop c'est-à-dire techniquement ci biir baax na mais su fekkee ne produit bi rafetul présentation bi rafetul rek ki koy utiliser sax du du am envie utiliser ko wala nga xamante ni du du ko mën a comprendre solo trop ci ngay defar site euh, site web wala ngay defar application wala ngay defar application mobile loo ci mënti defar rek design dafa nekk loo xamante ni dafa am solo alors d'ailleurs euh, comme li ma la waxoon rek dégg naa aussi am nga yeneen compétence yoo xamante ni bokkut ak dara informatique tu vois <laughs> ne leen d'ailleurs artiste bu mag la ko <laughs> am na nag ay quelques extraits yu ma jot a seetaan euh, sur internet sur YouTube mais j'ai vu ba léegi yaa ngi ci informatique bi la ba léegi yaa nekk yaa ñuy représenté ci ci ci ci série yi quoi <laughs> alors li ma bëgg noo xam deer mooy naka la sa passage boobu demee naka nga def ba dugg ci jóge ci informatique bi dugg ci euh, voilà ci ci acteurs yi quoi voilà. lu euh, en fait man maa ngi ñëw Marodi maa ngi ñëw Marodi TV 2015. mais bi may ñëw Marodi boobu. dafa tombé Marodi nekkoon application replay quoi ñu doon replay ay série ba si yàgg rek directeur bi moog pot ñi écrit yi defal suñu série bopp quoi léegi noonu ci lañ créé Pod et Marichou léegi benn jour réalisateur bi di wër bureau ñëw suñu bureau di fii laay doo bëgg a tourner fii quoi mën leen ba jouer xam nga léegi ci laa ñëwee nag toog nekk figurant ah ok donc figurant nga njëkk commencé. <laughs> yenn saa yi sax première su saison une bi sama propre bureau fi may liggéey dans la vraie vie fi laa jóg tudd. oh là <laughs> même ci tournage bi même ci tournage bi sax projet yi may liggéey ce sont de vrais projets yow da nga yaakaar ni. <laughs> théâtre rek yow c'est sûr c'est sûr da ngay ne lii ci biir ci biir scénario bi la bokk quoi. fekk maa ngi liggéey quoi. léegi nag après noonu laa demee ñu may jox ay rôle ñu may jox rôle bi nag ëpp doole de ce fait. ok jox ci bedd bi wala ma dem réunion benn entreprise. ma dugg toog ñu xool ma ñun ba yow yow dootu yaa kat. Ah, yow informaticien nga. <laughs> ma leen dootu yaa kat informaticien laa ñun ma ñun. <laughs> wala non mais non mais non mais parce que ça te permet nga am ay xalaat xam-xam yu bëri te voilà informatique moom métier la rek mais les aussi beneen affaire la quoi passion la voilà et tout ça. en tout cas man je vois que yaa ñuy représenté bu baax ci biir ci biir série yi je vois. dëgg la dëgg la yi am na ay réalisateurs ay metteurs en scène ay léegi ñoom chaque situation ñoo la expliqué mais comme que yow. d'habitude informaticien yëpp doo doo am xel léegi yow. loolu rek rôle bu ñu la jox da koy jouer. da nga koy jouer da nga koy non man tu t'en sors très bien man man gis naa ko mais franchement j'apprécie très bien euh, rôle yi nga def mais attends mais est-ce que mën nañ la xaar ci yeneen ci yeneen ci yeneen euh, rôle yoo xamante ni ça n'a rien à voir ak informatique. Euh, xanaa xanaa c'est la rôle ni ki naka imam laa fa. non boobu seetaan na ko donc kon boobu dinañ ko seetaan allah <laughs> Der maa lay gërëm bu baax franchement kontaan naa ci sa contribution. Uh-huh. et euh, ñoo ngi wax auditeurs yi que ne ne euh, mën ngeen euh, liñ fi wax ni yëpp ngeen ko jàng sur internet tu vois mën ngeen nekk autodidacte maanaam koo xam ne yaay jàngal sa bopp. Uh-huh. il suffit am volonté te boo am volonté boo amee volonté lépp day mën a ñëw facilement instant bi nii outil yaa ngi fi Google Bank fii ñëpp ñi am machine bëri nañ même sa téléphone portable boo ko yoree sax war nga ci mu ngi ko utiliser pour jàng ci xam-xam au lieu que nekk tout le temps WhatsApp tout le temps discuter et tout ça donc der lan moo nekk sa mot de la fin. Euh, waaw maanaam kii comme wàllum xëy bi ñuy wax nii euh, liggéey ñi ngi fi mais sauf que euh, compé expérience moo des bu bon message bi pour jeunes la. Ah, da dugg ci internet nga xool les offres d'emploi nga xool wàllu information. poste yu bëri ay web designer la front end développeur nga sëgg ci bu la yàlla jàppale rek boo ci defee minimum ñetti weer ñeenti weer rek ah, da ngay da ngay mën mën mën nga am liggéey bu gaaw a gaaw a gaaw a gaaw. ça c'est sûr ça c'est boo ci da liggéey. waaw ça c'est sûr te mun nga dem ci benn entreprise di fa liggéey en tant que euh, développeur ba mu yàgg sax gars yi dugal na ci film bi nga nekk acteur ah. <laughs> ah, c'est sûr. <laughs> ah oui gërëm nañ la bu baax euh, Der ci invitation ci li nga accepté ñëw ci invitation bi wax ak suñu auditeurs yi expliquer leen lan mooy design ak lan mooy euh, njëriñam ak lan mooy métier wu front end développeur alors ñu ngi leen di jox nag rendez-vous euh, ci beneen épisode ci beneen semaine incha allah dinañ waxtaan ci beneen thème bu am solo maanaam Node ji ak JavaScript la ñuy waxtaanee ci semaine bi di ñëw incha allah alors merci beaucoup Der ñu ngi lay sant di la gërëm merci